defe naa ni dégg nañ la léegi nag am na beneen kaa boo xamante ni bala ñuy ñëwaat ci plateau bi rek dañuy jox sunu naataango moom da ko dund ak euh, rakkam bu mu bokkal ndey baay donc muy loo xamante ni xew woon na ca Thiès je crois que en 2014 la wala 13 moom dina ko leeral euh, Souka Mbaye ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay ajaratu Betty Mboub Sidi maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. di muy nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne rek ñi ngi saxoo di seetaan télévision mag bile. Mm-hmm. mu di Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix ma lay nuyu. di nuyu ñoom Issa ak ñi nga xam ne rek ñoo nekk say invités yi de marque yi donc mm-hmm. maa ngi leen di nuyu lu bëree bëri. Euh, Azuka mu mel ni lii ñuy waxtaanee tey yow dund ko euh, y a quelques fële ca Thiès. ci koo xamante ni sa frère la ngeen bokk ndey ak ndax mën nga ñu ñëwaatal ci euh, nan lañ ko agressé ba mu ñàkk ci bakkanam ak yëpp. <laughs> kooku waa sama rakk la ñoo bokk ndey ak moo topp ci man ñu gën ko xam ci Ibrahima Mbaye mhm. muy payi bu c'était en 2001 xaritam intime moo ko waaw xaritam intime moo ko rey. c'est comme li pa bi expliqué. léegi rek jàmm xaritam intime xaritam boo xam ni. Euh, ñoom ñaar ñoo daan ànd souvent. Mhm. Euh, donc euh, sama rakk doon nit koo xam ne tamit nit koo nit koo xam ni comme ni ngay àndeek sa xarit. Mhm. mu nit koo xam dafa yëngu par rapport ak xaritam bi. Mhm. donc xaritam bi doon koo xam ne dafa noppi man dama daan poser sax question dama daan ko yow diw noo mën a àndeek diw. ma ne ko diw ni mu xumbee ak yow ni nga ni nga timidee li tax ngeen di ànd noonu mu muuñ. daan ree rek bu ree daal di xarit bi nga daan wax waaw xarit bi laa ko waaye noo mën a ànd ak diw noo mën a ànd ak bu hmm. payi ak yow ni nga noppee bu ko waxee loolu rek après day muuñ hmm. euh, léegi ñu ñoom ñaar du def ay dañ dañ doon xeex ci football calcio mooy li ngeen di def nii euh, ci euh, tund bi terrain tund hmm. ñoom ñaar ñu fekk mu fekk ko mu nekkoon sax ci ay jàng nekkoon dafa demoon ay jàng ànd ak sama yaay muy jàng Ablaye yàq ni muy def chaque année ñu ànd fa Aliloo moo ko fekk ci kër gi fekk ko ci néeg bi mu tëdd. ki ko rey ki ko rey. waaw moo ko yeesi. ni ko lan ni ko paay bu nañ dem football yi. Mhm. mu ne ko dama sonn mu ne ko dama sonn mu ko dama sonn damay doog jóge ci ay jàng. Mhm. mu ne ko nañ dem rek kalso bu nu ka buyee ñu ñu ñu ñëw. Mhm. ñu demaat ñëw mais ndeysaan bi mu demee ñu football xeex bi ñu xeexee après moom mu ju moom sama rakk bi dem seen kër demaat seen kër fekk fa yaayam naa ne ko ana diw mu ne ko. dafa génn mu ne ko waaye tànt xeex na mais xool dootuñu xeexati de ndekete loolu. Mhm. Euh, sama rakk bi ñibbisi. di waaj sangu. moom ki ko rey fekk ko ci buntu kër gi c'était prémédité. Mhm. fekk ko daal koy fekk fi mu tëdd fi mu toog nekkaat ci kër gi. Mhm. mu woowaat ko ni ko kaay gunge ma. waaye bu kaay gunge ma bu ko damaa sonn sànq ñëw nga lekku ma. nga ñëw ni ma kaay jël si ma ñu ànd ci football nga woowaat ma damaa sonn. mu génn dafa génn ci wan ko wax xaama ñëw sax daal di génn ak yéram ak kilotam génn fekk si ko ci biti ci buntu kër gi. Mhm. mu jël paaka bi rek jam ko génne ah. Hmm? waaw noonu la def. mu yem fa. waaw Aliou nii la def sama rakk <laughs> mais bi mu ko bi mu ko jamee ba pare nan la ko sa yaay. <laughs> Euh, bi mu ko jamee après dafa daw daf ko daw fekk si waat ci biir kër gi. léegi sama rakk bi def nii biiram daal daw moom dugg daal ni diw jam na ma. mais da bi bi mu bàyyee dafa def G. G waaw dafa def benn G. dafa mm. ñëw léegi sama yaay euh, bi ñu woo sama yaay fekk sama yaay da doon inscrire sama caatu da doon inscrire caatam. Mm-hmm. muy Pape Grital. Mm-hmm. da doon inscrire ci pour mu dugg école. yow foo nekkoon. dama doon léttu. léttu <laughs> dinaa ñàkk. comme ñaar ñu bokk baay mu tombeek benn dimanche mu di 24 juin loo xam ne doo ko fàtte mukk la. loo xam ne yaa ko dundul ak sa njaboot ak sa yaay. Mhm. sama yaay bi ñu ko ko waxee dafa defoon ni lu metti lu ndaw la. bi ñu ko danoo jàmpaayi bu ma defe ne woon gaañ gaañ la waaw gaañ gaañ rek la bu ndaw. Mhm. bi mu ñëwee après euh, bi ñuy jël bi ñuy jël nit ki lee di ko dugal ci oto bi di ko yóbbu police sama rakk da ko pour mel pour wan la ni la tàngaayu yaram bi dafa ne ko yow man ngay wayu jam nga ma di loolu la ko wax ni ko danga ma jam. bi mu ko bi mu waxee daal téye sama papa daal koy jël daal koy yóbbu hôpital Saint-Jean. ki ko jam nu mu réagir bi mu ko jamee ba pare. nu mu def dafa tiit ndax man fekk naa ko bi bi paye bu gaañoo ba bind ko ci journal seen nit lépp waaw euh, quotidien ñëpp bind nañ ko bi ñu ko bindee man maa jël journal bi ma yóbbul ko fekk ko fekk ci prison bi ñu tëj ko nii bi ma ko jëlee yóbbu ko jël journal bi bi ma sànnee journal bi ni ko am paye bu gaañu na dafa yuuxu. waaw dafa yuuxu. bakkan waaw dafa yuuxu waaw mais euh, muy loo xam ne sama yaay dund na ko muy dund boo xam ne euh, ajaratu lu metti la euh, ndax nit bu ñàkkee loo xam ne dafa fort ci moom dafa metti paay bu bi muy gaañu ñaata at la amoon paay bu muy gaañu mi am vingt ans vingt ans ki ko rey moroomam la waaw moroomam la ba mm. pare jour bi muy jour bi ñu koy dëjël jour boobu la waroon a def befem befem waaw mm-hmm. jour boobu la gaañu muy le vingt quatre juin mm-hmm. loo xam ne doo ko fàtte mukk ndeysaan ñu pour sauver ko waa Saint-Jean sauvé ko ba sonn ñu indi ko principal waa Saint-Jean de Dieu waa foofu mhm. lañ ko defee opération bi ñu dugal ko vingt heures ñu ngi ko dugal vingt heures lañ ko dugal ba trois heures du matin après ñu indi ko nag principal principal principal nag fii la gaañoo. ndeysaan muy lu metti en tout cas lu metti la. muy lu metti loo xam ne sama yaay dund na ko. waaw euh, loo dundul nag. Euh, dañuy masawu ki nga xam ne mooy fàtt ki ne yaayam. Mhm. Adja euh, ñàkk dafa metti surtout ñàkk loo xam ne dafa jóge ci sa biir nga ëmb ko juróom-ñeenti weer. ngay ñaan muy ngay ñaan ni ki yàlla na gudd fan. ngay gis ko ngay gis sa doom muy màgg muy màgg. ngay am ci espoir waaw am espoir. comme sama comme sama rakk da nga daan am espoir ci moom ndax da wax ay wax naan su ma màggee lii laay. bëri woon projet. waaw bëri ay projet donc. projet boobu nit ku tuuti benn xaritam bu xaritam koo xam da wax ni xaritam nga. Mm-hmm. mu def mu yàq àddunaam ci loo xam ne mooy loo ci lu ñàkk fayda donc dañuy wax ni que nag euh, dañ leen di ñu am na ñoo xam dañuy rey par méditation am ñoo xam dañuy rey par accident accident mhm. am na ñoo xam dañuy accident moo tax moo ne parce que ki nga joteel mu dugg këram nga dem wuti ngàndaay ñëw jam ko waaw dem kon kooku da nga ko prémédité da ko préparé da pour ñëw pour rey ko muy mhm. loo xam ne mhm. da euh, da nga naan da ngay baale mais heure boo gisee koo xam ne tol na ni moom heure boo gisee koo xam ne am na age boo xam ne comme moom la mel heure boo gisee ku nu rey souvenir boobu day ñëwaat. d'accord muy lu métti d'accord. <laughs> Uh-huh. Euh, Souka Mbaye ñu ngi lay euh, masawu yaa keneen koo xamante ne dund na li ni mel Issa